Tafa ñu lay jaale ki nga xamante ne woon papa la ci yow lépp la ci yow muy booy Bambara euh, génn àddunaam waaye mu nekk tiis boo xamante ne dal na monde làmb waaye rawatina yow mi nga xamante ne bi ma ko yëgee sama xel ci yow la njëkk a dem euh, yan témoignage nga ñu mën a defal ci père booy Bambara. waaw ah, dañuy wax alhamdulilah rabil alamin ñu sant yàlla ci ci yenant bi di wax comme moom moo ñu ko joxoon moom moo ko jëlaat kon dañuy wax alhamdulilah rabil nag moom nekkoon na koo xam ne kenn ci ñun. ku ñu taxaw woon la susma man mi man man ku ma taxaw woon la ku ma jàppale woon la waaw parce que defal na ma loo xam ne tey jii suma kilifa bi ma jur sax defaluma ko waaw parce que daaw ñu réeroo daal maak moom daaw ñu réeroo waaw yan anecdote nga ñu daan fàttali ci loo xamante ni daan na ko dëkkal sa nopp di la ko wax saa su waaw entraînement rek moom léppam moom képp kuy entraîné rek moom mu lay gis entre ngay entraîné xaritam nga waaw loo ko mënti may tamit te doo def euh, li mu bëgg. bugg ko moom loo wax mu ne entraînement rek parce que c'est le travail qui paye lañu daan dénk waaw góor góorgóorlu leen mën a jàppale seen waajur yi mën a jàppale seen seen bopp génn àddunaam ci lan la la fekk ak nan nga ko yëgee. waaw dama man man dama ko tudd la euh, bi ma xëyee suma yaram dafa diis maa ngi nekk euh, ci ministère de la femme di liggéey foofu mais dama ñëw daal am naa sama benn copain boo xam ne ñoo ngi toog foofu ñuy toog mu may toog ñaar ma tey tey da nga géey quoi man ko man tey dafa amul la dama xaw a feebar journée bi yëpp lekkuma dara waaw ma wàcc bi ma wàccee. suma amar tamuy dawalal ministre woo ma jotuma fekk suma portable vide quoi woo ma jotuma mu ñëw kër ga fekk ma ma may waaje sangu mënu ma waa Tapha yëg nga li xew ma ne ko lu xew xam nga man pour man sax ci ay waxu ministre la may wax quoi ma ne ko lu xew mënu ma euh, bës de moo woote léegi ni Sophie moo ko ne paa bi noppalu na ma ne ko kon de lu am na parce que Sophie moom boo waxee rek parce que am na waaw parce que bës bu ci mënee jot. doomu paa bi wax ko kon loolu am na parce que am na ci loo xam ne journaliste yi lañ ko daan yéege kon bu jugee ci ci doomu paa bi rek mun a mën ko loolu du ay kii waaw noonu laa ci jote guddi na boobu tamit ñu ñëw fii ak couvre bi xam nga waaw parce que doomam benn doomam boo xam ne démb la jóge Gambie pour ñëwoon seet si rien que ci papaam mais balaa muy dugg Tëngéej fekk na paa bi wàññeeku waaw waaw. ñu koy jaal di leen ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana eh, yàlla may leen xolub muñ amiin ñu ngi koy jaale Sénégal gépp waaw xam nga Boy Bambara moom c'est un monument waaw ñoom ñëpp parce que ay kii ngi nii lii mooy ànd bu yàgg parce que ay xaritam ay xaritam ngi nii ay ñoom per Ibrahim ñoom ñëpp tey fii anciens lutteurs yëpp parce que xëy na ñëpp mënuñu ñëw parce que am na lu leen tënk ñii tawat ñii xam nga seen i tànk xëy na diis na waaye nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw taxawaay daal. waaw taxawaay bi parce que parce que tey jii ci ngay war a xam ni tey jii liñ naan doomu aadama tey jii balaa ngay xam rek mu won la ginnaaw waaw parce que tey jii ku ne gis nga armée li ni mel waaw ak feebar bi fi mu toll nii waaw bu ñu demee ba tey jii àdduna ñëpp ñëpp mënuñu ñëw ñëpp mënuñu ñëw mais duñu balaame kenn duñu balaame kenn dañuy xam ne nii euh, dafa am lu ko waral feebar bi ak xat-xatu àdduna bi daal